Les personnes coupables de détournement de fonds ne peuvent pas être pardonnées. Nous n'avons jamais dit qu'on allait leur pardonner. L'argent ne m'appartient pas, ni à moi, ni au président Bassirou moomu ko kon mu see bokk te suñu discours yëpp mun nañ ko génne kenn du ci génne gis contradiction ci point bi kon d'accord nañ ci te ma ne gars bi ñu jëlee réew mi ak léegi li ñu gis doy na Depuis qu'on a accédé au pouvoir, ce qu'on a vu est aberrant. Inutile de faire du bruit. Nous ne comploterons pas. Nous ne créerons pas de dossier pour les gens. Tout sera clair et la justice fera son travail. Le fait de tuer des gens délibérément ne peut être pardonné. Donc, je vous rassure, ce qui doit être fait sera fait. day revendiquer ay droit loolu muy xeex nga faagaakal ko door ko balu fital mu dee est-ce que loolu bokk na ci baale bi. kon ma dalal xelu ñëpp ni lañ ca war a def dinañ ko def jarul yàkkamti jarul parax-paraxe